kon mbokk alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal santaat suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëgal gi mu ñu wërsëgal ñuy dund fukki fan yi mujj ci weeru koor ñu ngi nekk ci ab néegam it fas yéene jàng ab téeréem loole nekk ay ngëneel yu bari di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla boole ñu nangul ñu ngi woon ci saaru màgg wi di suratul maida tey nekk suñu juróom-ñetteelu daje fi suñu boroom subhanahu wa taala di waxe walaw anna ahla alkitaabi amanu wattaqaw ci juróom benn fukkeelu aay bi ak juróom kon insha allah moom la ñu war a jël bu dee Cheikh Ousmane pare na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما فأكلوا من فوقهم فأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء caragal yàlla la kaffarna anhum sayyi'atihim doon nañ far ñeel leen seeni ñaawteef wala adxalnaahum jannaati naim te doon nañ leen dugalit àjjana yi xéewal ya walaw annahum aqaamu tawraata wal injil bu doonte ne dañoo taxawal lii di tawraat ak injil wa ma unzila ilayhim min rabbihim ak li ñu wàcce jëme ci ñoom mu jóge seen boroom di alquran la akalu min fawqihim kon dañ lekk ci lu jóge ci seen kaw wa min taxti arjulihim lekk lu jóge ci seen suufi tànk minhum ummatum muqtasida nekk na ca ñoom mbooloo xeet boo xam ne mu dégg doomu lañu wa kasiirun minhum saa ma yaamaluun waaye lu bari ci ñoom day aka bon la nga xam ne moom la ñuy jëf yaa ayuha rasul ey yow yonent bi yàlla bi ballig ma unzila ilayka min rabbik jottalil li ñu wàcce jëme ci yow mu bawoo ci sa boroom wa in lam tafaal lool day soo ko deful fa ma ballaxta risalata xamal ne jottaliwoo ay yonentam wallahu yaasimuka min annaas yàlla nag mooy ki lay musal ci nit ñi inna allaha la yahdi alqawma alkafirin yàlla day du jubal xeet woo xam ne dañoo doon ay weddikat ñu ngi noonu mbokk suñu borom day wax rek ne ñii nga xam ne ñooy yahudi yi chrétien yi ci dars yi passé borom bi ŋàññi na seenu doxalin waaye loolu firiwul ni yàlla da leen a génne ci yërmaandeem ba faw bal suñu borom mu ne képp ci ñoom ko wëlbatiku gëm yàlla ca ragal yàlla ñaawteef ya nga xam ni jotoon nga koo def ñaawteef yooyu day dinaa la ko baal ca it danaa la tabbal la nga xam ne moom mooy ajjana yi xéewal ca loolu mbokk mooy suñu mbaaxu boroom doomu aadama bi li am solo mooy la nga deeyee waaye boo saxoon ci kéeféer juróom ñetti fukki at bis boo tuubee dellu ci yàlla yàlla baal la la nga defoon yépp ndax bu doon tene ne dañ ne bakkaar yi kat diir ba nga ca def pour yàlla baal la ko da nga cay defaat diir da ngay defaat diir bu toll noonu ci jaamu yàlla kon musiba am ci ñu bari waaye na nga nekk ci mooy yàlla lu yàgg lool bis ba nga dogoo jëm ci sa boroom mu sell ne dootuloo dellu gannaaw ca loolu suñu borom bàll lépp te it boo dee ci loolu yàlla tabbal la aljanna loolu mooy xéewalug yàlla ajjana mooy jannaati naim xéewal yoo xam ne day feeñ ci seen kanam ya feeñ ci seen jëmm ya feeñ ca fa ñuy nekke lépp loo fa dégg xéewal la loo fa gis xéewal la loo fay dund xéewal la amul lenn loo xam ne dana ko njaxas borom bi wëlbatiku ne day ñooñu di tudde ne dañoo yoroon téere bu dee ca yahud ya wala ca nasaraan ya tey buñ nangoon a taxawal téere bi yàlla wàcce ci ñoom yi tawraat téere bi wàcce ci ñoom yi injil waaye ñu xam ne loolu du mën a sotti lu dul ne dañoo taxawal li jóge ci seen boroom muy alquran ca itamit mbokk amul kenn koy taxawal tawraat ba pare fekk da nga weddi alquran ndax tawraat ak injil yépp bokk na misaal yoo xam ne ñi ngi ko doon wax yonent bi alayhi salaam ak xeetam ñi ngi ñëw képp koo xam ne nag xeet boobu yàlla boole na la ci ba pare gëmu loolee da ngay gis ne yow gëmatoo tawraat gëmatoo injil moom la borom bi di wax naan loolu mooy masaluhum fi tawraat wa masaluhum fil injil ay mboole mi melokaanu yonent bi ak i saxaabaam yàlla leeraloon na ko ci tawraat ak injil suñu borom nag ne ahlul kitaab yooyu day lañ jëndee diine yàlla ji mooy bànneexu àdduna ak am amu àdduna waaye moo ne day bu doon tane ne ñoom dañoo nangu woon a taxawal alquran yàlla dana leen ubbil xéewal yu jóge ci seen kaw ak xéewal yu jóge ci seen suuf mbokk xéewal yu jóge ci kaw lañ ci xamoon bu njëkk mooy ab taw taw xéewal la buy jóge ci kaw asamaan nga xam ne mooy arrosé suuf si ngiree gàncax mën a am waaye la ca daan lañ ca daan dolli it mooy garab yi nga xam ne dafa daan màgg tiim leen garab yi nga xam ne da daan màgg tiim leen lañu daan jàppe ne loolu mooy xéewal nga jóge ci kaw la jóge ci suuf mooy meññeent ma am maa nag suñu borom subhanahu wa taala mbokk gis nañu ne mujj nañoo dem mu wërsëgal ñu ci suñu suuf loo xam ne ni kenn mënu koo peeg tey te jii li ëpp luy doxal adduna bi mi ngi jóge ci suuf boo gisoon dëkk bu mel ni Arabie Saoudite nga xam ne dëkk la boo xam ne amuñu mbay amuñu industrie amuñu dara waaye naataange ba fa nekk kenn xamul nu mu toll lu waral loolu suñu borom moo génne ci seen suuf pétrole yàlla mi def fa xibla jurit ña nekk mu def ko muy premier producteur mondial di pétrole la fa yàlla def ci pétrole defu ko ci benn dëkk mi ngi noonu yàlla tey jii mi ngi ñuy wërsëgal lii nga xam ne mooy gaz di jóge ci sunu suuf si la ëpp ci àdduna bi tey gaz boobu la ñuy taaloo di ko tàngaloo di ko kaza di ko kaza bokkul ak nag la ca yàlla dëxëñ ca or baag manganèse baag plutone baag lu nekk ci façon la ca yàlla suñu borom defar lii nag borom bi nee na mi ngi ko dig ñi nga xam ni dañoo taxawal téereb yàlla bi te lii la borom bi di wax ni wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ki ragal yàlla day kum mën a doon suñu borom yàlla nee na dinaa ko may génn waay te dinaa ko wërsëgal foo xam ne moom fooge wu ko fa woon loolu it mbokk ngal la waay xéewalu yàlla bu ko sàkkoo ji mukk ci bàyyi la nga xam ne muy ay ndigalam ak i tereem lii suñu borom sant ahlul kitaab dig leen ko loolu la diggoon suñu maam nuux alayhi salaam ba mu ñëwee ci xeetam lu mu leen waxoon moom it jéggalu leen seen boroom konde dana leen baal yónni asamaan bi yàlla doon wax min fawqihim yónni asamaan moo tawal leen taw yi tegaloo defal leen ay dex génneel leen meññeent yokk seeni doom yokk seeni alal loolee da ngay gis ne mbokk la nga xam ne moo koy maye mooy juboo ak sa boroom subhanahu wa taala looloo tax ba xeetu lislaam heure bu ñu toogee yàlla téye ab tawam dañuy daal di yëg ne ah ñun day nekkuñu ca yoon wa ndax yàlla nee na bu dee topp nañ ko gëm ko mu indi xéewalam su ko téye am na lu tax loolay jur jullig baaw naan ñu ngi noonu jullig baaw naan looloo koy jur te itamit bari na lool fa ko jullit ñi defee yàlla subhanahu wa taala fekke leen fa akub taw muy wone ne yàlla moom taw ci mi ngi koy wàcce fu ko neex ci ay jaamam suñu borom dellu ci ahlul kitaab yooyu mu ne ñoom day am na ca ñoom xeet bu digg doomu waaye lu bari ca ñoom la ñuy def ak a bon ca loolu mbokk dafay wane ngëneelu xeeti yonent bi ci yeneen xeet yonent bi xeetam moom dafa ab taqalikoo ñetti parti minhum saabiqun bil xayraat ca am na ca ñoo xam ne dañoo jiitu ci aw yiw am na muqtasit mooy ña nga xam ne def nañ farata ya bàyyi nañ tere ya amma bu dee xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ne gannaaw farata ya góor góorlu nañ ci ay naafila yoo xam ne dem na ba jegal leen seen borom subhanahu wa taala ñu bokk min al muqarrabin loolu suñu borom di wax naan dañuy doon ñetti groupe mooy ña nga xam ne ñooy muqarrabuna jege seen borom leneen ko may mooy yéemuñu ci faratayee kese waaye faratayee kay bañ ca pare luñ mën ci naafilay zikr naafilay julli naafilay aj makka naafilay lu mën koor gudul lépp ña ngi ca ña ngi ci sax borom boobu kon noonu la waxee ci ahlul kitaab yooye mu bàyyi loolu dellu su ci suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam mooy ñii nga xam ne ñooy borom xam-xam yu jiitu day tawraat bañ leen joxoon nëbb nañ ko la leen seen arrangé wul jottaliwuñ ko chrétiens yi la leen arrangé wul ci injil jottaliwuñ ko yow nag yonenti yàlla bi yónni naa la jottali la nga xam ne wàcce nañ ko mu jóge ci sa borom ay alquran ngi ni yàlla ko wàcce kan mooy yàlla yàlla mii sa borom yow yonent bi moo la bind moo la sàkk ma wàcc ci yow téeréem bi kon jottali lépp jottali googi mbokk suñu borom ne ko boo ko deful jottali woo loolu mooy lan mooy soo jottaliwul yépp jottali woo yàgg ko jottaliwul yéen a yem te jii boo jëloon benn waay na ko dix mille yi demal joxal ma ko diw mu dem ba ca yoon bi teq ca trois mille dem jox ko sept mille suñ ko suñ la laajee ndax diw jox na la dix mille bu ma la yóbbanti woon loo jëkk a wax ah déedéet déedéet ngay jëkk a wax joxuma dix mille de nangam la ma jox ay kon ab yóbbante loo cee wàññi yàkk ka joxewul yéene yem kon boo wàññee dara ci sama risaale bi mel na nga jottali woo dara looloo tax ba mbokk yonent yàlla bi lépp lu ko yàlla wax loo wax loo na ko xatta loo xam ne yedd la gu jëm ci moom suñu ay Aysa nee na yonent bi day bu doon nëbb dara dana nëbb aaya ba ko yàllay wax ci mbiru Zayd mam doomoo woon wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdihi wa taxsha nnaasa wallahu axaqu an taxsha yow day yaa ngi nëbb ci sa bakkan loo xam ne yàlla dana ko feeñal yow yonent bi yaa ngi ragal nit ñi te yàlla gënoon a yey nga ragal ko loolu ñu ngi koy jàng ci alxuraana bu doon yonent bi dana nëbb dara loolu lay nëbb yonent bi bu doon nëbb dara dana nëbb bi ko yàlla di jaj abasa wa tawalla an jaahu al ama mi ngi ñëkkal kanamam di dummooyu ngir silmaxa bi da koo dikkal wa ma yudrika laallahu yazakka aw yazakkaru fa tanfahu zikra sunu boroom dal ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dal yu metti lu ko waral mi ngi toog ak ay cadre ci jamonoy tey ay cadre arsat ci waa Makka yi di wax ak ñoom silmaxa bi moom jóge fa la xamul lu xew yaa Muhammad lan ma mujj wàcc ci alquran perturbé boobu mu perturbé yonent bi naqari ko ba mu ñëkkal kanamam suñ borom wàcce alquran du ñuy jàng ba ila yawmi diin da nga noonu borom bi yonent bi bu doon nëbb dara ci alquran dana nëbb baayam abi lahëb mi nga xam ne magu baayam la dañu naan keroog bi yonent bi juddoo sax jaam ba ko doon wax sarak ja am na doom bu góor da ko gore yàlla wàcce alxuraan ñu koy rëbb ba ila yawmi din tabbat yada abi lahabin wa tabb te ko xam giirug arab xam ne képp ko bokk ci ñoom xas luñ ko xas day yegg ci ñëpp loolee kon bu amul lu muy nëbb dana ko nëbb waaye mbokk yonent bi lépp la leeral leeral googu yëpp du ne alxuraan ji rek la jàng mu jeex suñu borom dana ko woon wa nazzalna ilayka zikra wa anzalna ilayka zikra li tubayyana linnaasi ma nuzila ilayhim dañ laa wàcc ceew alquran ngir nga leeral ko amul benn aaya bu yonent bi jottali xeet bi lu dul boo ko boole na ca leeral leen ne aaya bii lii la ci yàlla jublu mu ngi noonu aaya bii lii la ci yàlla jublu looloo tax ba dañu daan jàng alquran daawuñu ko jël rek ñu leen koy liiral déedéet mu ngi noonu su ko defee lii aaya bi mokk boo ko jàngee ba pare lan la lay jox lim lay jox mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam day la ko yàlla santoon def na ko jottali na diine yàlla ci waaw léegi biñ demee ba yonent buy faatu ñu toogaat ay siècle benn waay ñëw indi ne lii day yonent yàlla bi moo ko ko jox ndax kon yonent bi amul lum nëbboon ay saxaabaam bàyyi ba kii ñëw moom mu ko koy doog a jox di siècle après mbokk loolu mooy la nga xam ne moom la ñuy dund tey ci témoignage yu bari yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy def yonente bi alayhi salaam dikkal na ma jëxëran jox na ma loo xam ne nii day moo gën a màgg la nit ñi jëkk ña yoroon am na ci ñu yegg ba ne la leen yonente bi jox mille ans mille ans la wax di après moo gën a màgg alxuraan bi ñuy jàng moo gën a màgg alxuraan bi ñuy jàng jàng ca benn rek moo gën màgg jàng juróom benn junniy kaamil lii suñuy wax la mbokk jullit waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne yaa ngi indi ay jaamu yàlla gannaawam benn li nga mën a wax mooy lii day yonent bi xamu ko woon yow la ko yàlla xamal ndax yonent bi dama xamoon moom jottali na ko wala boog nga ne non yonent bi xamoon na ko waaye da ko nëbboon saxaaba yi bàyyi ba yow yaa gën a yey yow yow mu ñëw mu jox la ko ñaar yi ndax jullit dana ci wax benn déedéet kon ñu xam ne mbokk diine mooy lan diina mooy la yàlla joxoon ab yonentam ba ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum tey matal naa diine ci looloo tax ba ba muy dajeeg ñoom ci ajug tàggatoo ga ngi noonu nga xam ne fan yu néew la ci teg faatu taxaw na ci saxaaba yi ne leen waaw hël ballaxtu ndax jottali naa ni ma yàlla yónni woon ñoom ñépp ñu ne ko ah kay seedeel ko mu ne allahuma ashhad ay yàlla seedeel ba mu fa jógee nag la ne wal fal yuballighil shahidi minkumul ghaib ngal la waay ki fekke samay wax na ko jottali ko ko fekkewul woon loolu it kon suñu borom dafa yónni yonent bi ba ilaa yawmi din da koo yónni ilaa kaafatan li noos te yonent boobu dundam nga mi ngi limité woon ci ah septième siècle léegi luy pexe dana woon jottali leen ma looloo tax sahabatul kiram gàddu seeni jaaseeg seeni fas ak seeni gileem ñee jaar Syrie ñee jaar Irak ñee jaar feneen tasaare diine yàlla ji bañ jeexee seen doom yi jël seen sëdd yi jël ñuy tasaare diine yàlla ji ba ñun tey ji diine yàlla ji yegg si fii ci ñun à 6000 kilomètres de la Mecque ak 14 siècle suñu diggante ak yonent bi loolee ay nit ñoo dox suñu diggante bay diine yegg si ñun ñooñu yàlla na yàlla fayal ñu leen loolu it ku nekk war caa jéem a bokk ku nekkal xamal ne li la war mooy jottali diine yàlla ji amma mbooloo mu ñu naan lii kat mooy mbooloom sëñ diw kee mbooloom sëñ diw kee mbooloom sëñ diw lu tax mooy ñii nii la ñuy zikkre ñii nee la ñuy defee mbokk loolu amul kenn ku yàlla may ci diineem ji mu yokk ci dara wala mu wàññi ci dara amul kenn la yàlla joxoon loolu muy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla di ko contrôler pendant ñaari fukki at ak ñett yokkal li wàññil li yokkal li wàññil li ba bis ñëw yàlla na ko nag nii laa ko bëgge nii la baaxe al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina mbokk loolu mooy diine lan moo teqale xeetu yonent bi tey ñàkk a d'accord ci loolu bu ñun ñépp d'accordoon ne diine daal mooy la fi yonent yi bàyyi loon ki saxaabaam kon mbokk mbooloo mi dina gën a jàppoo mbooloo mi dina gën a ànd waaye ni ma leen ko waxee rek moo la asaf mooy ku nekk ci doomu aadama yi am nga loo xam ne jàpp nga ne ak jagleel la gu yàlla jagleel masamba ma dem ba lu bokkul ak lam jagleel yonent yàlla bi ay yonent bi jottali wallahu yaasimuka min annaas yàlla moo lay musal ci nit ñi bul ragal nit ñi jottalil loolu mooy sa devoir na am mbokk yàlla moo ko musal ci nit ñi doonte ne ne firiwul ni lor du ko dal ay lor dal na ko yu bari ci yoonu yàlla waaye nit ñi mënuñu koo faagaagal ba du jottali li ko yàlla sant waaye mbokk damm nañ ab bëñam njabar nañ ko sallallahu alayhi wa sallam empoisonné nañ ko ba am poison boobu sax bokk na ci la ko mujj faat lu nekk def nañ ko ko ci ay ay lor waaye teewul yàlla moom aar na ko ba mu jottali la nga xam ne mooy diine yàlla ji ba mat sëkk borom boobu nag subhanahu wa taala ne yàlla day du jubal la nga xam ne mooy xeetug yee féer loolu it bokk ñu xam ne bokk na ci forme jottali yi yow mi nga xam ne tey déglu nga benn waxtaan waxtaan boobee enregistré nañ ko ngal la waaye nga jottali ko keneen moom it mu déglu ko loolu ci jottali yi gën a am solo ca la bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yal na yàlla yërëm ca naatal kanamu ki nga xam ne daa déglu samay wax jottalee ko nam ko déggee jottalee ko nam ko déggee loolu it kon daan ci profito ñaanalaat sunu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy ubbi ay site ci internet bi di tasaare la nga xam ne ah borom xam-xam yi ñi ngi koy wax bu dee ne ñun lañuy gën a itteel ci jàkka ji ak lu bari ci jàkka yi ahlu sunna yi lu mel ne xam sa diine ba nekk New York lu mel ne xam islam boobu it nekk nga xam ne ñoom suñ mbokk bi ah Seydou Ba ñoom it ña nga nekk États-Unis ña nga xamee ne nii ñooy waa dégg diine yi yooyu yépp nga xam ne dañuy topp jotaayu sunna yi di tasaare diine ji loolee ñi ngi ñaan yàlla fayal ñu leen bari na it ay groupe yoo xam ne nii ci jamono ji ubbi nañ ko bu waxtaan amee fenn ñu tasaare ko ci benn heure lu jege nangami junni nit déggandoo ko loolu lépp ñi nga xam ne ñoo bàyyi seen temps taxaw ci loolu ca ñu jiital ci it sunu mbokk technicien Aboubacar mi nekk suñu gannaaw ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy def relais bi yal na yàlla boole leen ci ñiy jottali risalatillah naam ndax kat am na ñoo xam ne guddeeg bëccëg ñi ngi topp musiciens yi kaset yi ñu génne ñi ngi topp caaxaan yi di ko tasaare guddeeg bëccëg loolee nag kon fokk mu am ñoo xam ne ni it ñooy tasaare diine yàlla ji borom bi nee na moom du jubal xeet boo xam ne xeet yi féer lañu mi ngi noonu Cheikh Ousmane قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأت على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
barakallahu fiik suñu borom mu ni qul yaa ahlal kitaab neel ey yéen borom téere bi la borom téere yi lastum ala cheyin nekku leen ci dara xatta tuqiimu tawraata wal injil lu dul ngeen taxawal tawraat ak injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum ak la nga xam ne wàcce nañ ko mu jëm ci yéen jóge ci seen boroom wala yazidanna kasiran minhum dana dolli lu bari ci ñoom nag ma unzila ilayka min rabbika la nga xam ne wàcce nañ ko mu jëme ci yow jóge ci sa boroom dana leen dolli tuxyaanan wa kufra la nga xam ne mooy ak bew ak wedd fala ta'sa ala alqawmi alkafirin ngal la way bul nekk di tiisu ci xeet boo xam ne xeetu yéeféer lañu inna allazina amanu wallazina haadu ña nga xam ne day dañoo doon ñu gëm ak ña nga xam ne ay yahud lañu wassaabiuuna wannasaara ak ña nga xam ne mooy saabiuun am na ñu ne dañ doon jaamu ay biddiw am na ñu ne ñoom dañoo yoroon tawxiid rek waaye topp doon benn yonent wannasaara ak ña nga xam ne ni mooy nasaraan ya man amana billahi wal yawmil axir ku ci wëlbati ko gëm yàlla gëm bi su mujj ba day wa amila salihan jëf-jëf ju baax fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñu mel noonu day du ñu am lu ñuy tiit te du ñu am lenn lu ñuy tiisu laqad axasna mithaqa bani israil ñun day jàppoon nañ kóllëreg bani israil wa arsalna ilayhim rusula yónni jëme ci ñoom ay yonent kullama jaahum rasul heure bu leen dikkalee yonent bima la tahwa anfusuhum ci loo xam ne dëppoowul ak bànneexu seeni bakkan fariqan kazzabu benn kuréel ba ñoo weddi leen wa fariqan yaqtuluun beneen kuréel ba ñu rey leen mi ngi noonu mbokk suñu boroom dañuy xamal ni yow jullit bul jàpp mukk ne dafa am ñetti diine yu am ci kaw suuf diine yahud ak diiney nasaraan déedéet mbokk yahud yooyee képp koo xamee ne nii dégg na ne diine lislaam am na day xamal ne ak yahuutam moom yàqu na nekkatul ci dara lu dul dafa gëm alquran waaye képp koo xam ne dégg na lislaam mu weddi la nga xam ne ca la nekkoon yahut ak nasaraan amul lenn lu mu koy jëriñ loolee ñu xam ne ku ciy wax ak ñoom ñoom dañ naan la l'ancien testament muy tawrat le nouveau testament muy injil waaye na nga leen xamal le dernier testament muy alquran bi jóge ci suñu borom subhanahu wa taala loolee kon nekkuñu ci dara moo tax suñu borom ne inna alladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi naari jahannam sawara lañ jëm ñu ngi noonu borom boobu nag ne alquran ji ñëwoon pour gindi leen la ëpp ci ñoom dana leen dolli ak bew aku kéeféer ndax na am biñ yëree tawraat ak injil bewoon nañu weddi woon nañu na am alquran ñëw ngiree gindi leen ca bew googi ak weddi googu ñu boll ca nag weddi alquran encore weddi tawraat weddi injil weddi alquran encore yow yonent bi bul tiisu ca la nga xam ne ay xeet lañ yoo xam ne dañoo nekk ci kéeféer ca loolu tamit jullit da ko war a gëm yàlla moomam ay jaamam moo ci def lu lu le- lu ko neex yow bul rey sa bopp ci gannaaw yéeféer mi ngi noonu comme la yonent yi waxoon Shuayb ak keneen fa kayfa asa ala alqawmi alkafirin koo xam ne dangaa weddi fetteerlu yàlla war la yoon bu dee sa baay ak sa doom ak sa kum mën a doon ngal la way bu mu la yàqal say nelaw gis na yoonu dëgg weddi na bàyyi ko ak boromam subhanahu wa taala fala taasa ala alqawmi alkafirin borom boobu nag daal di ne ña nga xam ne day ñooy yahuud ya ña nga xam ne day ñooy saabiuun borom xam-xam yi nee nañu dañoo nekkoon ci diiney ibrahim waaye doon bokkaale yàlla di jaamu ay biddiw am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne ñoom dañoo yoroon tawxiid rek mais tënkuwuñu woon ci benn yonent mais daaw ñu bokkaale ak yàlla suñu borom nag ne ñooñu nasaraan yi ki ci gëm yàlla gëm yowmal qiyaama ca jëf lu baax mbokk loolu ñaar lay mën a doon mooy yow yaa ngi ci yahuud mosoo dégg lislaam waaye yaa ngi wéetal yàlla jalla wa ala la nga xam ci ndigal yàlla yaa ngi koy jëfe ku mel noonu ba dee ci loolu yàlla subhanahu wa taala dana ko baal tabal ko àjjana lii valable ci moom mooy valable ci nasaraan bi kii di Salman al Farisi gis nañ ci histoire am bu gudd bi mu jaar nee na bokk na ci labbe ba mu jëkkoon a nekkal ba mu demee ba màgget mu ne ko waaw yow su ma la gisatul ci kan lay roye diine mu ne ko day li Isa doon dund xawma ku koy dund xanaa lu dul diw mi nekk place sangam ba labbe ba dee Salman takk ay bagage am dem ca kookee ba mu fa nekkee ak moom ba bis mu ne ko waaw yow sëñ bi su ma la gisatul ana kan nga may sant ma dem topp ko mu ne ko ah li Isa doon indi di ko dund day tey xawma ko koy dund ci kaw suuf waaye jamono jii day jamono ju yàlla di yónni ab yonent la xawma fan lay juddoo waaye xam naa fa muy mujj te mooy dëkk boo xam ni nii la mel nii la mel jox ko tegtalu Madina loolee kon ñooñu nga xam ne dañu nekkoon ay chrétiens wala nekk ay juif di dund tawraat wal injil wéetal suñu borom subhanahu wa taala bokkaale wuñ ko loolee bu ñu dee ci loolu même bu dee fekk ne yàlla yónni yonent bi alei salatu wasalaam yàlla du leen toppe loolu nga xam ngeen xattaa suñu jamono tey jii am am na kenn xamul ñaata ci milliards yi doomu aadama yoo xam ne xamuñu lislaam mosuñu dégg sax lu lu lislaam mi ngi noonu maa ngi leen di nett di yàggul dara Mouhamad Arif yi benn ci borom xam-xam Arabi Saoudi di dene dafa amoon benn ah, tournée bu mu doon def Afrique du Sud bi ñëwee ci restaurant bi ki nga xam ne moo koy servir mu ne ko waaw yow ndax mas nga dégg lislaam waa ji ne ko lislaam mu ne mu ne noonu tur boobu mosu ko dégg mu ne ko mais l'islam loo foog moom la war a doon mu ne ko islam mais est-ce que du marque oto yaakaar naa marque oto la de yaa ngi dégg ku mel noonu xam nga ne bokk xamuñu ci l'islam dara ñooñu nag taxul ñuy wax moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax man yasma bi képp koo xam ne dégg na ma dégg samay melokaan xam ne yàlla yónni na ma ba pare mu weddi ma man ma borom bi wax naan man yakfur bihi min al ahzab fa naaru mawiduhu ku ko weddi ci kuréel yi amma koo xam ne mosoo dégg yonent bi alayhi salaam ku weddi woo ko yaa ngi nekkoon ci lu baax yàlla dana la ko nangul amma ki xes ñu leeral ne ko kat yàlla yónni na yonent bu bees gannaaw Isa ibn Maryam yonent boobu indi na ab téere ba pare mu lànk bañ koo gëm ku mel noo ne da ngay gis lam doon dund ca tawraat ak injil dootu ko jëriñ ci dara borom boobu delluwaat ci bani Israil nga xam ne ñoo ñi gën a sonal adduna bi depuis yàlla tànn leen def ci ñoom ay yonent ba tey borom bi nee na jàpp nañ kóllëre ak bani israil kóllëre ga yàlla jàppante woon ak ñoom ca mooy bañuy naan dégg nañu topp nañu ngir yàlla wàcc ci ñoom téere yu mag ak yonent yu mag borom bi nee na yónni naa ci ñoom ay yonent yonent yu bëree bëri mboolem yonent yi ñëw gannaaw yonent yàlla yanquuba ñi ngi bokk ci bani israil borom bi nee na heure bu yonent ñëwee indil leen loo xam ne dëppoowul ak seen bànneexu bakkan benn parti ca yonente ba ñu weddi leen dàq leen beneen parti ba ñu jàpp leen rey leen loolee mbokk ñu dégg ci ne yow mi nga xamee ne nii da ngay wax dëgg di wax li jóge ci yàlla nga jóg wax ko mbooloo jóg na la li ngay wax yépp ay fen la am na yonent yi la jiitu woon ci loolu xatta bu ñu demoon ba rey la it am na yonent yi la jiitu woon ci loolu waaye ñu xam it ne mbokk lee ñuy jàmbat Israël koo xamee ne nii seeni maam ñoom ñu bokk ci ñoom muy benn yonent yàlla yàlla yónni ci ñoom ñuy ñaar ñu àttal leen tiim rey leen ba dañ naan bani Israël li ñu rey ëpp na ñetti téeméeri yonent ku mel noonu ndax dana am yërmaande ci beneen xeet laa du ñu am yërmaande ci beneen xeet looloo tax ba naka noonu it pacte yi ñu fay signé yëpp heure bu dee mbir nekk na ca dëppoowul ak seen bànneexu bakkan ñu jël ko sànni fële ca àll ba loolu moo tax ba mbokku ay yahud lenn rek nga mën a teqali ko ak ñoom mooy xeex ak ñoom ba yàlla may leen ndimbal seen kaw waaye du ay négociation wala ay déggoo yahud xamut loolu mi ngi noonu ndax bu ñu ko doon xam jëflante ko ak seen maam yi yeneen ci jëflante wuñ ko mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم barakallahu fiik suñu boroom jalla wa ala nee na wa xasibu alla takuuna fitna ñoom day jàppoon nañu ne jëf ju ñaaw jooju ñuy def day du leen jural benn fitna fa ammu wa sammu ñu gumba gumbalu tëx tëxlu summa taaba allahu alayhim yàlla wëlbati ko baal leen jëf ju ñaaw jooje summa ammu wa sammu ñu gumba gumbalu waat tëx tëxlu kasiiru minhum la ëpp ca la la bari ca ñoom wallahu basiirum bi ma yaamaluun yàlla nag aji gis la la nga xam ne ñi ngi koy jëf laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam weddi ne de ña nga xam ne dañu naan yàlla day mooy masix doomi maryaama ja wa qaala almasihu ya bani israil te doona day isa ñëwoon na mu ne ay yéen doomi israil ubudu llaha rabbi wa rabbakum jaamu leen yàlla mii sama borom di seen borom innahu man yushrik billah li am day mooy képp ku bokkaaleeg yàlla faqad harrama allahu alayhi aljanna yàlla araamal na ci moom àjjana de wa mawaahu nnaar ca wàccuwaayam mu ëllëg mooy sawara wa ma li zalimina min ansaar tooñkat yi du leen ñeel kenn ku leen di dimbali laqad kafara alladina qaalu inna allaha thalithu thalatha weddi na day ña nga xam ne dañu naan yàlla mooy ñetteelu ñett ña wa ma min ilahin illa ilahun wahid donte ne amul kenn ko yeyoo ñu jaamu ko lu dul yàlla yi benn ba kese wa in lam yantahu amma yaquluun suñu gàttañluwul ay bàyyiwul la nga xam ne ñi ngi koy def day la yamassanna alladina kafaru minhum dana laal ñe weddi ca ñoom azabun alim mbugal moo xam ne mbugal mu tar la mi ngi noonu mbokk gis nañu xol bu xisee ba muuru la nga xam ne danga koy def dootoo ci am benn yëg-yëg ndax suñu boroom nee na jëf ju ñaaw ji ñu def àttana tiim yonent rey ko teewul jàpp nañ ni amul benn problème bu ñu demee àllaaxira it yàlla baal leen suñu boroom yàlla subhanahu wa taala nee na man day toppee wuma leen seen jëf ju bon joojee jéggaloon naa leen yónni waat yeneen i yonent waaye dañoo wëlbatiku waat gumba waat tëx donte ne yàlla day gis na la ñuy def borom boobu loolu mu waxit day wone ne mbokk képp koo gis mu féetéerlu ci kéeféer di wax wax yu bon di jëf jëf yu bon loolee bum la jaaxal xamal ne yàlla jalla wa ala day mi ngi jàkkaarloog moom ca it xam na lépp la waa ji nekke ca yàlla sàgganewu ko ma ngi wax ci surata ibrahim ne da leen di yéexe rek innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fihi l absar bis nga ñëw duñu mën a mucc yàlla moo tax yàlla ne mi ngi leen di gis mi ngi noonu bokkoon na ci loo xam ni chrétiens yi dañ koy wax mooy ñu ne yàlla mooy isa ibnu maryam ñi ngi noonu ca am na ci ñoo xam ne dañ ne yàlla ci boppam moo wàcc wàccuñ ci kaw suuf feeñ ci turu isa naam ca isa day moom ba mu ñëwee lan la waxoon ay yéen bani israil jaamu leen yàlla moo ma bind mooma moom rabbi wa rabbukum képp koo xam ne da ngay bokkaaleeg yàlla yàlla araamal na ci yow ajjana te safara la jëm ba faw kenn du am ku ko fi dimbali te loolu rekk mbokk mooy tax àjjana aram ci yow loolu dong ngay tax àjjana aram ci yow mooy bokkaale ak sa boroom subhanahu wa taala waaye képp koo xamee ne nii bi ngay daje ak sa boroom la nga fa yóbbu dug bokkaale yàlla lu mu yàgg-yàgg dana la mas a tàbbal ci biir àjjana loolu kon la Isa waxoon moytu leen loolu ndax tooñkat yi duñu am kenn koo xam ne nii ku leen di dimbali ci loolu borom boobu nag wëlbatiku waat ci beneen kuréel ci chrétiens yi ñoom la ñu wax ñu ne inna allaha salisu salaasa yàlla ñetti ñetteelu ñett ña la te ñoom dañu ne mooy yàlla ruhul qudus ak isa mooy ñoom li ñuy tuddee la trinité ñu ngi noonu mooy ñett lañu yàlla ruhul qudus isa donte na ñett yépp benn la borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne ñii day xam leen ne yàlla benn dong la ruuxul qudus boobu ngeen di wax di jibril alayhi salaam kooku mooy kilifay malaaka yi di jaamub yàlla daan wàcc ci ndigalu yàlla isa ibnu maryam jaamub yàlla la di doomi maryama nekkoon ci ndigalu yàlla yàlla kon benn yàlla rek mooy yàlla ba nga xam ne am na suñu bàyyiwul li ñuy wax nag mbugal mu tar dana mas a wàcc ci ñoom ca mbokk mbugal boobu wàccul àdduna day wàcc alaxira donte ne mbokk boo delloo sunu nit yi tey it léeg-léeg nga dégg ci ay dérapage yoo xam ne dañ koy def yàlla mos na dugal samay nopp benn wax jëma dégg ci rajo bi ne sëñ diw day ba ka nga xam ne taalibe bu mag dafa ñëw na ko yow day yow day yàlla nga yaa yàlla de fekk fa benn naar naar bi ne ko waaw kii doo ko tere lii muy wax naan yaay yàlla yàlla du kenn mu ne ko waaw wax nga dëgg de waaye nag daal di ne nañ koy indil benn peñu sukkar ñu ne ko peñu sukkar mu ne nañ koy indil siwo ndox ñu ne ko siwo ndox mu ne nañ ko ci seeyal ñu seeyal ko ci gannaaw ba mu ne naar bi ndax mën nga maa teqale ndox meeg sukkar bi mu ne ko ah déedéet mu ne ko nag ku mënul teqale ndox meeg sukkar gi mënu ko teqale ak boroomam mbokk yooyu ay lépp la ñuy lépp waaye yàlla jaxasoowul ak kenn loolu misaal yooyu loolu la chrétiens yi di wax le mythe de la trinité pour ñoom ñett lañu mais benn lañu loolu nag yàlla du kenn kenn jaxasoowul ak moom yàlla ñépp ay jaamam lañu mooy ilahul waaxid loolu la jullit war a gëm mi ngi noonu su ko defee doomu aadama yi dañuy yëkkati nit ba paasale ko mbindaa fon yóbbu ko jox ko lenn ci cëru aji bind ji mi ngi noonu suñ bilaal mi yaakaar naa am na góor gum doon waxal ba ñu yegsee ci mu wax wax yu yéeme mu ne ko ah waaw xanaa moom du nit mu ne ko comme da nga ko bëgg a def nit nag na waxtaan bi yem fi yaa ngi dégg moo tax léegi la nga dégg naan yaa yem ci zahir baa yem ci zahir mbokk yi yépp mooy lan mooy la chrétiens yi ak yahud yi defoon yëkkati seen sëriñ su baax sa yëkkati leen ci ba paasal leen foo xam ne yëgguñu fa loolee mbokk mi ngi noonu donte ne boo waxee ñu ne wala ñuy déngat kaza wa kaza waaye dañuy jàpp ne wax yi ñuy wax wallahi bari na sëriñ suñ koy waxal suñu dekkiwaatoon ba dégg ko daañ fàtte seeni nopp daw ba seeni dàll xar ndax mënuñu woon imaginer lii doomu aadama dana ko wax te it la la koy wan mooy wax la yoo xam ne yi ëpp ci ñoom ba nga ko dalay dégg matagul fanweeri at wala ñeen fukki at waaye mag ñi fi nekkoon doon dund ay cinquante ans ci gannaaw xam nañ ne wax yii ñuy wax quatre-vingt-dix pour cent wax ñuy wax kenn daaw ko wax bu njëkk loolu nag mbokk la suñu borom yàlla ŋaññee woon ahlul kitaab te yonent bi nee na fu ñu jaar da ngeen fa jaar mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآية
suñu borom mu ni moo ñoom yahudi yi ak nasaraan yi ak ñay wax wax yu mel ne seeni wax afala yatuubuuna ila allah ndax duñu tuub jëm ci yàlla wa yastaxfiruuna jéggalu ko lay seeni bakkaar wallahu ghafurur rahim ca yàlla day kuy jéggale la ca kuy yërëm ay jaamam la mal masiixu bnu maryam nekkul masiix doomi maryaama ja illa rasul lu dul yonente kese la qad xalat min qablihi rusul jiiti woon na ko fi ay yonent wa ummuhu siddiqa yaayam ja day mooy ku dëggu ko kaana yaakulaani taam ñoom ñaar ñépp dañ doon nekk di lekk ñam unzur kayfa nubayyin lahum al ayat xoolal ni ñuy leerale ñeel leen aaya yi summa nzur annaa yufakuun gannaaw ba nga xool naka la ñuy mën a doon ñu ñuy dëpp qul ataabuduuna min duni illah mu neel moo tax da ngeen di jaamu gannaaw yàlla maa laa yamliku lakum darran wala nafa loo xam ne moomul ñeel leen benn lor wala benn njëriñ wallahu huwa samiul alim ci yàlla muy aji dégg lépp aji xam lépp mi ngi noonu mbokk suñu boroom subhanahu wa taala mooy boroom yërmaande ji mooy boroom njéggal gi ca njéggalam ak yërmaande ne njéggalam ak yërmaandeem moo ëpp doole li jaam yi def ci musiba looloo tax ñii weddi yonent rey yonent jiiñ yàlla ne kenn la ca ñett ña jiiñ yàlla am na doom loolu lépp teewul suñu borom ni moo ndax ñoom du ñu tuub dellu ci yàlla gis ngeen moo ndax du ñu tuub dellu ci yàlla ca jéggalu yàlla ca mbokk tuub mooy dellu gannaaw reconnaître say erreur moom la yonente bi alei doon wax an nadamatu tawba rëccu ga ngay rëccu ne lii de bu dimb doon na tey du ma ko defati mukk mooy tuub am maa nag boo paree nag nga jéggalu nag yàlla bakkaar ba suñu borom dalay baal ba pare ndax ca lay yem bal dalay yërëm dalay baal ba pare tabbal la aljanna ci yërmandeem jalla waala loolu kon mbokk muy wane ne képp ku am xaritab chrétien mu ngi noonu wala wala rek chrétien te jullit moom xarit buñ koy wax jullit rek lay war a xaritool ngal la waay laayu ko biir wax ko mu tuub ca ñëw dugg ci lislaam ca falilahi alhamdu sunu maam yeeg suñu bàyyi day tuubloo nañu lu bari mais lu bari ci intellectuels yi tey dañoo jàpp ne ah nit ñi daal ku ne nañ ko bàyyi ak diineem nit ñi moom dañuy ànd àndandoo pacifique ànd ci jàmm nangam nangam bu poppi ngeen xewee ñu ànd dem bu lii xewee ñu ànd dem mbokk du noonu soo amee dëkkandoo mbokk àndandoo chrétien nga yéene ko jàmm ngal la waay wax ko mu tub dugg ci lislaam lii rek moo koy mën a sauver ci sawara bu dul looloo yowmal qiyaama bu la séenee noon bu rëy rëy la lay jàpp noon bu rëy rëy la lay jàpp ngir ne la nga xam ne yow leeraloo ko woon la nga xam ne mooy diine ji borom boobu nag subhanahu wa taala wëlbatikuwaat ci masiix mu ne xam leen ne isa ibn maryam yonent rekk la naam mooy grade bi gën a kawe bu doomu aadama di yem muy rasul rasul la am na yonent yu ko fi jiitu woon kon bu leen ko yëkkati ba def ko doomu yàlla wala di ko yëkkati ba def ko yàlla lu mel nii la yàlla waxoon ci suñu yonent yàlla muhammad wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul muhammad it du dara lu dul yonent kese am na yonent yu ko fi jiitu woon looloo tax ba ko yàlla faatee sahabatul kiram saalit adduna tukki na yonent yàlla bi dem na mu ñun fu ñu jëm kasa wa kasa abubakar dafa ñëw yéeg ca kaw minbar ba daal dina yéen nit ñi delloo si leen seen xel wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul muhammad lan la woon yonent ay yonent jiitu woon nañ ko fi la ko yàlla yónni mi ngi fi di alquran ak sunna faatu ne oui le problème mi ngi noonu jeex na alquran ak sunna ngi fi loolu moo moo nekkoon rôle bu mu doon def jottali na ko mi ngi nii dee na suñu borom lan la ca teg ndax bu dee da ngeen di dellu gannaaw ku dellu gannaaw sa bopp nga xam waaye yonent bi amuluñu njëriñ amuluñu lor lenn la séqoon ak xeet bi mooy jottali leen li yàlla bëgg jottali na ko ba mat sëkk léegi dem na mu ne nag hey yéen xeet bi ku doon jaamu muhammad muhammad moom dee na see ba mu rey boppam see ba lu ko neex def amaa na ku doon yàlla ngay jaamu fa inna allaha hayyun laa yamut yàlla moom mi ngi dund di dee ba faw lii mbokk it la yàlla wax nasaraan ya ngal la waay yemale leen isa fañ fa mu yem isa rasul la mi ngi noonu te loolu it yow julit loolu nga war a gëm isa rasulullah la rasul mooy ku kenn dul wetti waaye jaam la bu kenn dul jaamu mboolem yenente lan la rasulun la yukazzab wa abdun la yu'bat loolu ngeen di gëm yàlla it ñëw ci ne yaayam ja maryaama nga xam ne lenn ci nasaraan yi ñoom it nee nañ yàlla la ba yowmal qiyaama yàlla dana taxaw ak isa nu maryam yëngal ko ba isa di patpati waaw isa yaa waxoon nit ñi ne ittaxisuni wa ummiya ilahina min dunillah chrétien yi yàlla waxoon ñu jël la yaag sa yaay def leen ay yàlla héehée isa weddi na weddi yoo xam ne incha allah dana ñëw ci kanam ah loolee mbokk kon yàlla tagg ko ne moom day soxna la soo xam ne ndax yonent la woon déedéet siddiqa la siddiqa a siddiq mooy grade bi gën a kawe mooy ki yàlla nangu ne dëggal na lépp lu jóge ci yàlla amu ci benn sikk sakk dogg na ci kii muy as siddiq am na ko ko yonent bi alayhi salaam jagleeloon muy abu bakar abu bakar siddiq doonte ne sahabatul kiram ak caa bëri woon mi ngi noonu as siddiquun mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ni mu tagge isa tagge ko mariam am na benn labbe boo xam ne la ko tax a tuub nee na man dama doon dégg alquran mën naa xaaral xam naa boo demee lam cay wax rek muhammad nee na ay soxnaam nee nañu ay nangam nangeen mais mu ni man li ma gën a yéem ci alquran bi ma ko ubbee liñ ci wax ci isa genn wàll ga waxuñu ko ci muhammad gaa yi turu isa ibn maryam ñaata yoon la ñëw ci alquran kenn xamul nu mu toll muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee ay turam matu sax juróom yoon ki yàlla tudd soxna yonent bi kan la ci yàlla subhanahu wa taala tudd ci alquran kenn kenn kenn yàlla tuddul kenn ci soxna yonent bi ci alquran xoolal maryama nag ñaata yoon la ko yàlla tudd ci alquran jagleel ko aw saar suratu maryam saaru ali imran mu ne man lii ma ma yéem ma gën a gëstu alquran ba xam ne lii ci yàlla la jóge looloo ko dugal ci biir l'islam te mbokk mi ngi doon téere boo xam ne nii universel la yàlla yónnee ko ngir yee ci xelu nit ñi su ko defee kon soo amee dëkk ndëb chrétien collègue gu chrétien xamal ko ni ñun de ñu fonk isa lañu lu gëm isa lañu ñu fonk mariama lañu da ngi noonu ñoo ko fonk teg leen seen place ummuhu siddiqa borom bi ngir xamal le ne ñoom kat bu ñu woon ay yàlla mu ne kaana yaakulaani taam dañ daan lekk ñam wolof nee na junj doy na borom xel am déet sëñ caam bu jëlee ab cere mag maafim dóor ci ba gàtt balaa def une semaine ak lu mu yéex yéex yéex balaa def une semaine dana am fu mu soxla dugg fa am déet fa ngay soxla nag dugg fa dafa wéet mbokk kooku du yàlla looloo tax lu bëri ci sëriñ suñuy diñ yàlla it noonu la mooy sëñ bi buñ ko gisee ak i garab bu ba mu jàggar jàggar mu ne day danaa bis musu bi garab yëpp dugg ci mu xam lu mu fa defee ah mi ngi noonu sëriñ yi ñoom sàmm xam nañu ki nga xam ne mooy màcc màcc kiriku alors dafa nee na ñoom bi làbb yi ñëw ci ñoom nee na ñun dañ leen a màggaloon ba teg leen ay yàlla toujours ñu ngi leen gis seen tenue yi weex takk seen croix toilette yi impressionné nee na benn jour am benn labbe boo xam ne dañ ko waroon a jële ci benn dëkk yóbbu ci beneen boobu oto oto oto amul dañ leen daan utal ay genre lu mel ne tabouret comme chaise rek ay ponko la koy yenn ñuy dem nee na ma bokk ci cortège bi ci ñi koy yóbbu ñu dem ba ci yoon yi mu ne may leen ma ñu may may may ko mu wàcc nee na dem dugg ci boy gi nee na mu ne ah xaaral kii ma ma làqatu dem di ko topp nee na bañ dem ba ci benn garab rek mu daal mu daal di woo ko suuf daal di yegg suuf mu ne laa ila dégg dégg te ñii kat ñoom ñoo ma yem dégg nga dañoo jàpp ne ay yàlla dégg te ñii ñoo ñoo ma yem waaye mbokk ci gàttal suñu borom su waxee ne ñii dañu daan lekk ñam day wone rek ne yàlla rek mooy yàlla doomu aadama boo ko bëggee noppal noppalu yemele ko rek fi ko yàlla yemele nit la moo tax suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam daawul deñ ji fàttali nit ñi nit laa comme yéen innama ana basharun mislukum nit laa comme yéen da daan ànd ak ñoom di lekk ànd ak ñoom di liggéey ànd ak ñoom di def lépp nit laa comme yéen mais doomu aadama boo bëggee génne sa bopp cadre nii rek da ngay sonn mi ngi noonu kaana yaakulaani taam suñu borom subhanahu wa taala mu ne musuma yónni ab yeneen te lu dul da doon lekk ñam ñu ngi noonu wa ma jaalnahum jasadan laa yaakuluna taam wa ma kaanu xaalidin ila axiri loolee mbokk day wane ne nit nit la yàlla yàlla la ngal la waaye képp koy tagg yeme la ko fa nga xam ne fa la ko yeme fa la ko yàlla yemele borom boobu nag mu ne xoolal ni may leere la samay aaya ñeel ko xam waaye teewul lu bëri ci nit ñi ñi ngi nekk seen xel wëlbatiku gisuñu mbir yi nam war a nekkee ca mbokk képp ko soxla ñam doo yàlla borom boobu nag wëlbatiku daal dina waaw yéen ndax da ngeen di jaamu yàlla ñoo xam ne moomuluñ leen lor moomuluñ leen njëriñ mbokk déedéet suñ borom yàlla nee na gis nga ñi ngeen di wa min dunillah benn laa yasma'u du'aakum dégguñu seenu ñaan yaa nekk fii naan yàlla na la sëñ diw defal nangam di bés bu ngeen dégg ko ci rajo ak télé bi ak mbedd yi day wallahi sëñ diw déggu ko yaay fakka su yaa cheikh nangam wallahi déggu ko yaa naan bàyyi naa la sëñ diw wallahi déggu ko suñ borom mu ne dégguñu seeni ñaan walaw sami'u mastajaabu lakum même bu ñu ko déggoon mënuñu ci dara wa yowma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum heure bu ñu dajee ngeen yowma alqiyama daañu weddi noonu ngeen leen bokkaaleeg yàlla wa ma yunabbi ko mislu xabir wala yunabbi ko mislu xabir kenn du la xabaari ci ko mel na yàlla yàlla moomu nag nee na yéen a ngi woo ñu leen amulul njëriñ amulul leen lor te yàlla huwa samiu assamiu mooy aji kiy dégg aji kiy nangu moo tax sami allahu liman hamida mooy yàlla dana dégg te dana nangul mooy moom dong nga mën a ñaan mu mën koo dégg ca lam dégg dana ko def ca it mooy alim mooy ka nga xam ne lépp loo xam ne nekk na ci yow nga ñaan ko ak nga bañ koo ñaan yàlla xamoon na ko amaa nag boo ko ñaanee yàlla subhanahu wa taala xam na luy sa problème ca xam na nu mu koy réglé mbokk kooku kenn rek la kenn rek moo xam sa problème zahiran ak batinan xam nu mu koy réglé muy suñu borom subhanahu wa taala looloo tax ba nga la way julit loola mën a jaaxal neel yaa allah loo mën a yaakaar neel yaa allah lu ku la mën a menacé neel yaa allah lépp loo xam ne mi ngi nekk sa kanam waxal yaa allah xamal ne yàlla foo ko woowee ku jege la kuy dégg la xam na ca man na yal na yàlla may ñu jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira defal ñu aafiya fi dunia wal axira te defal ñu àjjana wi suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain mu ne ñun kan ay maçon lañu léegi nag suñu chantier dañoo am ca église ba loo xam ne luñ leen di tabaxloo ca église ba ndax jullit am na droit di dem ci loolu ala kulli xaal duñu gis benn texte boo xam ne nii dafay nekk di araamal loolu waaye day liñ la doon wax mooy soo fa bañoon a dem di liggéey day loolu mooy la gën ci yow ndax ku ne xam ne ni église la ñu fay def mooy dafa jaamoo façon ne jaamul yàlla boo xam ne l'islam nekkul lu ma gërëm loolu bu doon te ne ca jamono ba lislaam di jiite dañ leen daan wax ne léegi église yi ñu fi fekk moom daañ ko fi maintenir mais église bu ci daanu kenn du ko yëkkatiwaat loolee kon daal liñ day wax moom la gën a mucc ci sa diine su doon te ne ne am nga leneen loo liggéey lu dul dem di tabax église loolu lañ lay tegtal yow jullit nga def ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah dafa julli ba pare ca taayiwul ndax julleem dafa baax wala julleem nekkul loo xam ne nii lu baax la ala kulli xaal mbokk nañu xam ne taaya yooyee dafa am ñaari façon taaya taaya bu njëkk mooy taaya bi nekk ci digg bi su boobaa da ngay gis ne boroom xam-xam yépp xam nañ ne yonent bi mas na koo bàyyi waaye dafa julli ba julli bi pare mu daal di koy sujjuutal qabla salaam mu des nag li ñuy tuddee taaye bu mujj bi taaye bu mujj bi ñu bëri ci borom xam-xam yi dañoo jàpp ne moom dafa bokk ci faratey julli yi te farate kenn du ko sujjuutal kon bu doon da nga toog masalan di di di di julli taaye wuloo taaye boobee dañu gis ne da nga koo fàtte yaa ngi nekkoon ci leneen bu doon te ne ci gannaaw imaam nga nekk imaam dana la yóbbaale loolu amma bu doon nekkoo yow ci gannaaw imaam yow yaay dulil sa bopp su boobaa yaa ngi nekk di xalaat leneen peut-être yaa ngi doon jàngal xalaat wala leneen ba sëlmal da ngay jàpp waat taayawaat doog a sëlmal doog a sujud ba'da salaam loolee moom moom la ñuy def ca wàllu googu bu dee da nga koo fàtte ñu ngi noonu amma nag tey moom bu dee da nga koo tey moom julli gi yàqu na waaye jàpp mën a jullit dana tey di bàyyi taaya fàtte rek la mën a doon su boobaa da ngay taayawaat daal di sujud ba'da salaam bu dee ne kay fi nga sëlmale ak fi nga koy fàttalikoo nekkul diir bu yàgg mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam
suñu gerte tey bi dafay méngoo ak li ñu laaj bi ñu bëgg a laaj ça veut dire bon dañuy wax ne ju jël jullit bi li jaamu yàlla jaamu yàlla dana dem ba maanaam ku daraja wala ma xam malaayika waaye bu fekkee ne bi ñàkk jaamu yàlla dana dem ba bëri ngaan sa bëri ngaan mooy li di bëri
waaw na am loolu waaw loolu am na borom xam-xam yu wax loolu te mooy di firi ulaayka hum xayrul bariya ak ulaayka hum sharrul bariya te mooy julit yi mag yi jaamu yàlla ñoo gën a tedd malaaka yi la shakk ne moom ki jaamul yàlla moo yées la gën a yées ci bàyyu ma yi amma nag bu njëkk ba ixtilaaf am na ca waaye bi mujj moom amul ixtilaaf suñu borom nee na inna charra dawaabi inda allahi summun bukumun lazina la yaqiluun ñi yàlla gën a bañ ñi gën a yées ci mbindaafoon yépp mooy yéeféer amaa nag ndax jullit yi gën a kawe lu mel ne mursaliin yi ak malaaka yi lu bëri ci borom xam-xam dañ ñëw al mursaliin ñoom ñoo gën a kawe malaaka yi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaw bismillah waaw wala comme diinukum waliya diin loole mi ngi dem ba fa espoir jeexe loole fa espoir jeexe la la ko waraloon mooy jullit ñi dañoo mooy yéeféri ñoo ñëw ci suñu yonent na ko yow suñu doom nga histoire bi yàgg na bari na xam nga lu ñuy def waxal loo bëgg ñu jaamoo ko yàlla ñun ñu defal la ko te yow nga ñëwit di jaamu suñu xërëm yi suñu borom na ko déet nee leen yéen mënu leen a jaamu yàlla fii ak yéen a ngi jaamu xërëm yi man it du ma dem mukk di jaamu seen xërëm su ma ko defee jaamootuma yàlla kon lakum diinukum waliya diin waaye lakum diinukum waliya diin kenn du ko dégg ne chrétiens yi nañ dem ak seen diine jullit ñi dem ak seen diine déedéet jullit ñi yàlla da leen a sant ñëwoo chrétiens yi qul yaa ahlal kitaab taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum loolu lañu yàlla wax yéen jullit ñi nee leen chrétiens yi kaay leen ci benn kàddu ñun ñëpp ñu bokk ci yemoo nañ jaamu yàlla bu ñu ko bokkaaleeg dara buñ jël keneen ku dul yàlla di ko doxale suñu digganteeg suñu boroom loolu la yàlla sant bépp jullit waaye sant ko ne ko bàyyi ko ci diineem téye sa diine déedéet wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah dafa woor di wax ak jigéen ba am lu génn ci moom la génn ci moom day ñaar la su dee ne dafa doon mesure rek mooy loo xam ne ndox bu sew la kookee day def na lu ñaaw waaye nag yëggul ci borom xam-xam yi ne kooram yàqu na amma bu doon loolu dafa dem ba yegg ci lu ñuy tuddee mëni yu su boobaa moom dañuy gis kooram yàqu na mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah wa alayhi salaam
yàlla bu ñu waxee Muhammad alayhi salaatu salaam yàlla comme ci aaya boobu noonu ndax dañ koy ñaanee wala.
ndax wallahu yaasimuka min annas dañ koy ñaanee naam car rapide boo gis la ñu ngi ci bind wallahu yaasimuka min annas waaye mbokk ala kulli xaal suñu borom dana yaasimuka ab yonentam lay waxal yàlla dana la musal ci nit ñi te wax naa li nit la ci yàlla jëblu mooy ba nga jottali risaala bi. waaye firiwul ne yàlla dañ la musul ci nit ñi benn lor du la dal yàlla bàyyi na ko nit ñi damm bañam wax naa la ko jam ci ab jéem wax naa la ko empoisonné na ko wax naa la ko coono bu ne teg nañ ko wax naa la ko amaa nag faagaagal ko ba du jottali risaale bi loolu la ne ko na sa xel dal ci loolu suñu yaay Aysa nee na ci jamono yi nga xam ne dañu nekkoon ak fitna rawatina giir yi ñu daan wax waa Xatfaan nee na bis yonent bi toog na guddi moom jëmu ne ah te ji day ay ay waroon naa am day sama sahaaba yi kenn rek koo xam ne dana ci mën a garder ndax mu mën a nelaw ndax boobu fitna yi ñi ngi daan toog bu su dañu jàpp tey dañ leen di attaqué yéen a ngi fàttalikoo Omar ibnul Xataab sahaaba bi mu doon weccanteel tey mooy dem déglu xadisu yonente bi ëllëg Omar dem Omar nee ni bis laa toog guddi rek mu fëgg ma ma ne ko yow mbaal jàmm la mbaalu waa Xatfaan dañu attaqué mu ne déedéet lu gën a garaaw loolu ma ne ko wax nga musiba mu ne yonente bi fas na ay soxna ala kulli xaal loolu beneen mbir la waaye la ma ci jublu rek mooy yonente bi alayhi salaam ci stress ak tension bi nga xam ne moom lañ daan dund loolu la yàlla dé déggoon ne danaa ko mas a teggi ca suratu nuur mi ngi noonu ila axiri waaye la mu ci jublu woon mooy su ne ay Aïcha ne yeneen tamit tey jii day ah sama sahaaba yi de war naa ci am kenn ku mën a dima garde nee na rek lañ dégg ay lu mel ne ay arme yu yëngu yeneen bi ne kookan la mu ne ko man la Saad ibn Abi Waqaas mi nga noonu mbokk moom lañ tuddee suñu jàkka ji yàlla nañu yàlla boole moom ci àjjana ya nee na bi mu ne ko mën la Saad ibn Abi Waqaas te Saad ibn Abi Waqaas nijaay la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen moo dem jël ay armam ñëw taxaw ci buntu kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ca laa gis yonent bi di nelaw mais yonent bi mais bi aaya yi wàccee la yonent bi alayhi salaam ne léegi jaratu ko ku nekk ni dem tëddi këram la shakk ne yàlla dana ko aar ba mu jottali risaala gis ngeen loolu mooy wallahu yasimuka min annas kon ñu yem ci mbokk ñu mbokk bi rek waaw dañu nekk ci day xalaat ci wàllu jigéen ak kiy wax ak jigéen yooyu yëpp c'est la même chose li ñuy wax rek mooy lan moo génn ci moom li génn ci moom la ca ëpp mas yu lay doon amma di wax ak jigéen ba mën yuy génn ci moom loolu moom gars yi dératé gars yi am problème bopp rek en général liy dikkal mais nit ku normal du mën a yegg foofu lu ci bëri mas yi la su ko defee loolu dañuy gis ne warul lu yàq bu baax a baax sa darajee koor la ñu ngi mel ne rek waa ji war a pare di xuloo di xuloo ko xeex ku mel noonu kenn waxul kooram yàqu na waaye yonent bi sal dane ki woor bu mu xuloo bu mu xeex loolee kon da ngay gis ne bokk na luy yàq lool sa yoolu koor woor ba pare nekk di waxtaan nekk jigéen wala toog di xalaat ci wàllu jigéen loolee mbokk nekkul lu war mi ngi noonu yal na yàlla sàmm ñu sàmmal ñu suñu koor ak mbooli mi jaami yàlla wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain